te 2025 26 yu mel noonu 2024 2024 année électorale ñu jëm ci euh, année bu mel noonu tension bi jóg président Macky ñu koy xaarandi mu wax ci mbirum troisième mandat bi nga xam ne ñu ngi ko ci soupçonné donte amoon na occasion yu bëri wax ci leeralul yëf weesu. occasion yi des na. Ah, des na waaw commencé weesu mooy. Mhm. dañoo tiit ne ndax am jot naa ma. Mhm. occasion yaa ngi fi. comme euh, yaa ngi fi. Mhm. 3 euh, avril ak fii. Mhm. ndax jàpp nga ne président Macky Sall bi ngay gis ak jéego yi muy teg ak vente de carte yi massification yi mel noonu est-ce que taxaw na ci tànk leeral yu mel. waaw mais léegi kay. Mhm. moom bu bu loxo neen ak loxo neen mooy. Mhm. bon léegi nag affaire yaa ngi nii bon man gën naa ci politique mais dafa parti. partem boobu bëgg na dund bëgg na bu fi Macky Sall jógee parti bi kon ne di wéy nañ jaay ay carte Mhm. nañu taxaw taxawaay bu dëgër. Mhm. moom bu nekkul candidat nañu am candidat bu dëgër ñu teg ko. Mhm. waaye moom bu ni ko jàppe ko ne moom bu fa demul rek kon ah, jaay carte amul solo. ok nañ jaay carte. nañ def seen i stratégie. nañ def seen i plan. li ñu wax ne ji. sauf que ñoom deuxième quinquennat la ñuy euh, la ñuy prôné moom la ñuy wax fépp foo dem. mu mel ne président Macky Sall benn mandat la def. loolu baat wuti ñaareelu mandat. wax naa ko ci beneen télévision. naa ko waxaat fii. mooy c'est de l'escroquerie politique. deuxième quinquennat bi. lu baati quinquennat bi quinquennat ko fenn dans la constitution. la durée du mandat est de cinq ans. Mhm. nul. Mhm. exclusion de portée absolue. Mhm. nul ne peut faire plus de deux. président waxaloon ko ci boppam. Macky Sall candidat digge ko. ñu fal ko muy waxaat ko. mu dem ba ci biir waxaat ko ba mu yàgg mu ne ba waxuma déedéet waxuma waxuma kay waxoon na déedéet kay. waxoon na déedéet. Mhm. ndax loolu tamit euh, mën nañ ci sukkandiku ba jàpp ne duñ dem ci troisième mandat parce que gisoon nañ li fi amoon en 2011 avec le président Abdoulaye Wade. dama nga liiraat constitution bu njëkk bi nga xam ne affaire yi mandat. de constitution bu 2001 bi. dañ lay wax ne ji Wade bañ koy fal. Mhm. Euh, moo ko faloon. Mhm. amul loon limitation mandat. depuis 2001 c'est réglé que kenn def plus de deux mandats. durée yi rek mooy am coow. dafa mel ni constitution 2001 bi moo gën a leer du ñu réformer en 2016 parce que 2001 bi li ñu ci waxoon. mooy 2001 euh, euh, euh, bi la waxoon. Mhm. mandat yi c'est du am plus de deux. waay na un seul mandat renouvelable ah. mais pour sept ans. non bu 2001 bi. ah amuloon durée de mandat. Mmh. parce que Wade bi ñu koy fal le mandat était à sept ans. bu mhm. ñëw en soixante trois. la bu ñu en deux mille en deux mille un waay. le en deux mille. en deux le mandat était de sept ans. Mhm. parce que en 93 bi ñuy jub élection 93 yi xam nga avant c'était cinq ans. 88. 93. oui cinq ans la woon. Mhm. ñu ñëw léegi après yóbbu ko a sept ans. Mhm. waa di ñëw ne moom daf koy yóbbu cinq ans. Mhm. mais comme daf ko yóbbu cinq ans bi avant loolu moom comme dañ ko faloon sur la base de la constitution de 1961 dañ ko fal. 1963. la ñu ko fal. moom mu ñëw def référendum référendum ci biir 2001 bi ñu nekkoon léegi lañ doon def nga xam ne ji euh, mandat bi amuloon limitation léegi dafay am limitation. Mm-hmm. maanaam léegi kenn dootu fi def ñaari kenn dootu fi ëpp ñaari mandat mm-hmm. muy benn beneen ba mu ne mandat bi ñu def ko cinq ans léegi nag président moom bu ñëwee comme fekkoon na fi mandat wu sept bi. Mm-hmm. pro mooy li ne moom dana def dafa bëgg moom def ko cinq ans. ñaari affaire moo ci mën am. waay xam ne ji moom bi nekkoon ministre bi ci lu yàgg. xam ne ji lii li mu bëgg constitution du ko maanaam amul rétro amul. Euh, euh, euh, naka lañ koy waxee encore amul de maanaam liñ xas ba bind amul dellu gannaaw. Mm, rétroactivité kon kon bu mm, fekkee ne mm, voilà rétroactivité. comme mm-hmm. bu fekkee ne mënut a mënuñoo rétroactiver. Mm-hmm. mooy. mënu mm-hmm. mënuñoo rétroagir rétroagir maanaam rétroactivité mooy. rétroagir rétroagir waay comme mënuñ delluwaat gannaaw. léegi yeggaleel bii. sept ans yi. Mhm. dañ lay fal sept ans lañ ci def. Mhm. waaye terewul fekk nga fi loo xam ne jii du weesu ñaari mandat mhm. fekk nga ko fu ñu bind ko. kon bind kon dañ ko delloo gannaaw pour pour ne ko yi nga cinq ans sept yi nga bëgg munoo ko. waaye waxu amul fenn fu ñu changé ne mandat bi euh, durée bi dañ koy changé. ci deux mille ci ci deux mille un bi donc bii bu ñëwee. mu ne la durée du mandat est de cinq ans. daa fàttali. ba pare yokk ci ne lu mun di xew. Mhm. kenn mënta def lu ëpp ñaar. lu tax kenn mënta def lu ñaar mooy. Mhm. waxoon nañ ko depuis 2001. kon loolu daf ko dëggalaat rek. Mm-hmm. alors euh, ñu ñëw ci laaj gu mujj gi mooy mbirum euh, train express régional bi gannaaw bi euh, suñu naataangoo yooyu nekk France muy Le Figaro génnee article jàpp ne terre bi sénégalais yi en tout cas ni ko sénégalais yi déggee mooy am na scandale am na lu ci leerul ci bopp nit ñi ba sénégalais sax bi ñu liiree affaire yi du ñu jàpp ne terre bi moomuñu ko français yi ko moom gannaaw bi gouvernement bi def na communiqué notamment par la voix du porte-parole Abdou Karim Fofana wane ne ñoom sax ci capital bi am nañ 34 pour cent lii di terre bi raam yeeg yu ne mel patrimoine bi ñoom ñoo ko moom SNCF également bi nga xamante ne moom mooy ci yëf yi moom lañ joxoon euh, li nga xam ne moom mooy projet bi jàpp na ne effectivement Sénégal am na 34 pour cent ci capital bi et ñoom ñoo moom bi débat boobu euh, crispation bu mu indi ci espace politique bi réaction yi nan nga ko gisee. waaw xam nga def am yoo xam ne du fi guleet mm-hmm. moo tax coow li bëri. Mm-hmm. dañ fi gis ay dossiers day dem ba mu xam nga yaram yaram yaram bi yaram bi doomi aadama bu fekkee ne dafa dem ba néew doole. Mm-hmm. microbe bu romb bu ko romb bu oyof bu ko rombee sonal ko. Mm-hmm. pour quoi parce que bu fekkoon ne dañ ko doon wax ci wax kuy ñàkku. Mm-hmm. ñàkk xam nga ñàkk lan la. mooy doomi jàngoro jël la ñu jël. dugal ko si yaram. mu fekk fa ay yeneen soldaar dooleel leen. bu leen dooleel leen comme lu mel noonu saa bu fi ñëwatee ñoom. xam na ñuy xeex moom. mais bu fekkee ne yaram wi dafa néew doole. lu jóg ñëw sonal ko maanaam dañoo dem ba réew mi ñu ñu miin ci ay ati at yoo xam ne bés bu nekk ñu wax ni lii ak lii corruption nangam. corruption mm-hmm. nangam corruption nangam di ko wax scandale yi ngeen wax scandale ba mu yàgg bëri. Mm-hmm. leneen lu jóg def koy niru mu am ak mu ñàkk am. Mm-hmm. lu jógati dañ ko cay xëpp. mooy ne turi organisme bi ci boppam maanaam yar bi ci boppam. moo dem ba néew doole. mais am na lu mu demee kenn du xalaat sax loolu bu ñu nee France ak moom yoonu nga bëgg a wax ci organisme bi yaram bi. misaal bi la organisme mooy nii. Mhm. yarami doomi aadama yi. Mhm. bu fekkee ne nguur gi dañ ñoo miin. Mhm. ay at a ngi nii. scandale de nangam nangam. scandale nangam nangam nangam nangam dégg ci scandale moo bëri dégg dañuy dégg dafa bëri. day dem ba mu yàgg mujj gi lu ñu dañ naan waaw kon nag defat nañ ko defat nañ ko te pourtant mun fa naan defaat nañ ko mun na sax du loolu. waaye dañoo dem ba fi yàgg foofu. te bu fekkee dañ lay wax na ji yaa def nangam. ñu dem ba ca kanam yow waxoo ci dara ba ba naam wax la nga war a def. bu fekkee ne diw dafa tooñ. Mhm. nga war ko ñëw àtte. defuloo ko parce que daa sa mbokk la wala yeneen naa def laa jege. Mhm. bu demee ba mu yàgg lu jógati ka nga xam ne ji da nga ko néewaloon doole démb. Mhm. bu gisee loo xam ne da lay mën a gaañ mu ne waaw waaw kii mu ngi nii la def espace public bi foofu lañ toll fi mu nekk nii. mooy ne dañu wax ne ji comme nguur gi dañ ko jiiñee jiiñee jiiñ te buñ ko jiiñee du mujj fenn. kon xëy na luñ ko waxaat tamit ko def. alors que kàddu gu mujj la. <laughs> non pour gërëm la nag xam nañ ni mhm. ay dossiers yu compliqué ci la réew bi toll. dëgg fi mu nekk nii amul kenn koo xam ne ji mun na la wax exactement. fu ñu mhm. jëm. Mhm. li ñuy ñaan kay. mooy li ñuy ragal ñu ñàkk ci àgg. parce que réew mi. amuñ joti dellu xam gis nga léeg ñu fooy benn mbir. jëlal 23 juin. bu 2011 oui 2011 avant 23 juin. Abdoulaye Wade wax na c'est une brise passagère brise mhm. passagère ngelaw la buy romb rek mhm. ngelaw nekk ngelaw ngelaw lekku bu mhm. ndax da ngay xalaat ne ñi fi nekk tamit loolu mën na am ngelaw loolu gis nga dañu wax ne ji ginaar bu ko xeebal feebaram moo ko yóbbu àlaxira léegi politique ci am réew jamono yi àddina fi mu toll lii gën mooy jubal surtout bala gën a yeewu boo fi amee ñu lay tagg ne da ngaa yeewu da ngaa yeewu te bés bu ne nga def erreur mhm. da ngay xëy benn bés dugg si biir pax mi boo gees doo gisati kenn ña <laughs> la ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ibrahima Bakhoum mu nekk jàngalekat ci profession am comme ni mu ko waxee sànq ñu préciser ko waaw <laughs> suma suma suma métier du jàngalekat waaw waaye waaye damay jàngale suma métier <laughs> da ngay jàngale sa métier loolu nekk na pression bu am solo mbokk ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen entretien spécial fii ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf